Euh, bon, je voudrais revenir sur les propos de votre collègue là, journaliste. Kajor. Qui parlait ci problème aux forces de l'ordre. Parce qu'il faut faire très attention. Parce que les forces de l'ordre aussi font de la communication. Quand Swan Soko a été arrêté, euh, nous dégainons Japonais à travers les réseaux sociaux comme nous avons fait. Manipulation, oui, tout à zumut. Mais nous savons que nous avons dit que Ousmane Sonko est correct. gaañ nañ ko ñi naan dóor nañ ko lépp pour xamb taal bi pour que yóbbu violence bi en niveau boo xam ne jamais égalé mais moo tax ñu produire cette photo la pour montrer aux Sénégalais que Ousmane Sonko est dans de bonnes dispositions ça c'est le rôle des des de l'ordre aussi te bu leen fàtte ne Ousmane Sonko moom mooy attaqué force de l'ordre bàyyiwul kenn ci réew toutes les institutions lay attaqué donc bu situation bi demee nii ñu génnee benn photo ngeen bëgg ko def débat national naan Anita et mais n'oubliez pas nous à l'ère du numérique lañ nekk ère du numérique boobu ñoom moom lañ doon utiliser ba yóbbu niveau de manipulation fu mu yegg tey ci réew mi c'est très normal aussi que mu am même une réponse adéquate par rapport ak ñoom li ñuy def donc xam nga ne man maîtriser naa li may wax yéen a maîtriser tout li ngeen def parce que léegi-léegi bi ñu la posé question bi ci niveau de violence bi loolu nga wax da nga ne xoolal sama bopp ba pare na ñun ragaluñu mais quel paradoxe deux ay deux personnalités la ñuy gis bu ñu toogee ci plateau télévision ils font passer l'image comme quoi que ñoom c'est des c'est des démocrates c'est des mais après soo leen tiitee tuuti rek ñu wane seen jikko nous sommes où nous sommes dans pays nous sommes vraiment à quoi nous sommes confrontés actuellement il faut que nit ñi wax ko te te te dee Ousmane Sonko ak ñi mu àndal je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure ay fondamentaliste léegi fondamentaliste boo koy boo koy définir dafa am fu ma jëm dafa am ci arrestation dafa am fu ma jëm ci euh, arrestation wu Ousmane Sonko Gaël Gaël balaa ngay ñëw non parce que ay nit parce que situation bi situation la situation elle est grave Gaël et les gens ne le savent les beaucoup de Sénégalais ne parce que Ousmane ko bi ñu jàpp nii bi ñu ko jàppee def wan ni Sénégalais nii kii jàpp nañ ko mais force de l'ordre donc vous confirmez que la faute a prise par les Sénégalais yi a woon ni Sénégalais yi nii. merci Sonko jàpp nañ ko il est en sécurité amul benn problème et on va le pour la confirmation parce que xam nga lu tax euh, Ousmane Sonko il est passé de l'hameçon à l'appât xaw ma nu ñu koy waxee ci olof gis nga niveau de réflexion politique dafa am benn niveau xam ne bu ñu fa yeggee les gens ne peuvent pas soupçonner ce qui se passe à l'intérieur de ces cercles Ousmane Sonko l'autre jour j'ai entendu euh, El Malick Ndiaye ne euh, seen plan A plan B yëpp Ousmane Sonko la ba mu inverse sax le nom Ousmane Sonko ne Sonko Ousmane que ñoom lépp ci Ousmane Sonko lañ ko visé xam nga lu tax. Hmm. Ousmane Sonko est passé actuellement comme un appât su ko dara arrivé le pays peut basculer.